téléphone mm-hmm. nekk ci gars yi ñi sonn ak ñi wàcc ak ak ñi nga xam ne sax jot nañoo jotuñ jotuñ teer mm-hmm. am na ñoo xam ne ba léegi jotuñ teer waaw ci gàttal am na loo xam ne dañu ko doon nëbbu mais comme que ñëw nañ ba fii mm-hmm. nëbbu amatu fi ñun bi ñuy jógee fii ñu ngi doonoon quarante et un personnes vingt neuf moo teer dax la ana ñu ci des ñu may wax ñu ngi nii ñoo bokk gaal ñii di dee ñu leen di gis nii jaxran man su ma fekkee li may wax waxuma dëgg am na ñu may témoigner ñu ngi fii ñiy dee nekk ci gaal gi ñaari fan ñu xam ne lii mi ngi bëgg ëpp loxo ñuy sànni sa moroomu jullit koo xam ne nii yéen a nekkandoo woon mu dem ba dem ngeen toog nii dem ba kii xiif mar rafle toog ñetti fan xaw ma ñeenti fan yoo xam ne lekkuñu naanuñu kenn xamatul lan la ñu nuuru yow da ngay dem ba xam ne li ngay def nii ay milliards yi milliards jaru ko lu àdduna li ci biir jaru ko te am na si ñoo xam ne nii ñoo àgg Espagne di vidéo di woote naan gars yi ñëw leen ñëw leen fii dara nekku fi ñooñu ñoo àndi affaire yi. Mhm. ñooñu ñoo war a wax dëgg te waxuñ dëgg. Mhm. man nag li may wax nii bu doon sama sago. Mhm. média laay dem. parce que damaa yor ay preuve yoo xam ne nii télé bu ko amoon boo ko lancé déggoo li ma la wax de. ku ko dégg wala ku ko gis dina xam ne nii lii c'est la vérité man am naa possibilité taxaw wax. génné samay peureum né li mako ko enregistré lii maa duggoon ci gaay mhm. li mako féké mako téwé maa li mala waté 41 personnes nga téer 29 personnes ndax la ana ñi ci dess dañoo sanni ba sonu dañoo sanni ba sonu barki alcorane barki Serigne Saliou nga dem ba xamné li dara jaru amna ño xamné biñuy dem taguñ seen wajur amna ño xamné biñuy dem seen wajur ño leen jox pass amna su ño xamné ni ne nii seen waajur amaana sax dañoo jaay seen matériel dem. te à cause li ñu li ñu yaakaaroon nekkut Europe man def naa fa soo déggee ma ne la man damaa war a wax man def naa Europe damay wax espagnol comme ni may waxee olof mais ku yaakaar ne Europe da ngay dem rek it bu ñëwaat ndax nga sa bopp gars dañu war a toog ñi nga xam ne nii xamuñ luy ndox xamuñ li nga xam ne mooy yoonu géej bi ñu wax leen risques yi si nekk wax leen moor yi si nekk wax leen ñi nga xam ne nii maanaam dañuy dem di tayli seen bakkan te dara dara dara dara jaru ko si àdduna bo toge fi nak ñu lay expliquer nan la yoon bi ni nangam ak sangam wallaay laasim dañ la waxul li ci nek mais xam nga ni ku tok ñett fan leko nano di daw daw bo xamne xamoo fo jëm ñun bato yi non romb bato buñ ci romb di la ñaan dox doñu sax nango wul parce que à cause de ngalaw biñ tëmbee ba niñ téré ngalaw moñu sonal ñi dé ñëpp da ngay gis ko xamne ni da ngay dem bu mëna togo mun parce que bu ya xoti gaay da lay sonal te mëna ray ñi ci nek nga jël ñaanal ko sanni ci ndox mi dawal tuuti gisaat keneen ko wàccaat nga jëlaat sànni ci ndox mi te ñi nga xam ne nii ñooy tëgg gaal yi ñoom duñ sax yéeg ci gaal yi capitaine yi nga xam ne ñoom ñooy tëgg gaal yi di yóbbu gaal yi duñ sax yéeg ci gaal yi yàlla xam na li may wax nii ak yeneen tibe tibeeg sëñ Touba man mii di wax a génn damay dem géej moo laa mais ci sama àdduna dara jaraltuma dara jaral tuma may dugg fii naan damay dem Espagne te pare naa pour liggéey pare naa pour jàppale képp koo xam ne nii rek dangaa bëgg pour ndaw ñi retourner pour toog man am naa preuve te xam naa fu ma leen war a jaar te li may wane ku ma ko wan di nga toog boo bëggoon dem sax ci avion sax di nga toog Europe neexut li ñuy daj Europe buñ ko buñ ko toogee fii jaayandi ko fii barki Serigne Saliou dañ ciy génn waa dax la def nañ luñ man parce que xoolal mbooloo mi boo demoon nga xool la fa nekk kenn xamut nu mu toll chaque jour nga bëgg leen jox añ reer ndékki ah ci dëkk boo xam ne yow da nga nangam ak sàngam kenn xamut waaw ñun ñun ñun dañoo war a sant yàlla donte ne nekkin bi sax gaa métti na parce que bañ fa demee ba léegi mosu ñoo naan lu tàng mburu lañ jox meew ñu koy sant yàlla amuñ ko woon ci gaal bi amuñu woon ko amuñu woon ci gaal gi loolu gaal gi gisoo ko la may mburu gisoo ko la may ndox kon boo teeree gis ku lay jox meew ak mburu sante ko yàlla te kenn warul jàmbat sama gars yi dañuy toog sax ñu naan nanga man leen sant leen yàlla xool leen ñu sànni si géej gi man menn man maa fa yoroon téléphone piis

dañu leen woo ne presque fàtte woon nañ leen am na si ñoo xam ne dañ leen doon nëbbu koor yi di leen nëbbu koor yi ba seen famille ñoo woote ne ñu wax leen ñu dëgg ji ñu ñu ñu ñu jéngu wax leen dëgg ji ne leen ah diw de mu dinaa des si géej gi ñoom ñu nangu ko mais comme li ma la wax am na si ñoo xam ne seen koor lañ doon laaj ñii ñu ne leen koor yi yii des na si géej gi yii daal ci ci hôpitalu Daxla bi lañ lañ lañ wàccee waaw mais comme li ma la wax. sama téléphone moo fay mais yaay boobu bu fayoon dama lay génn lépp wan la non non c'est bon on ngeen naan dafa wàcc am na si koo xam ne mi ngi fii tey wàcc na ci koor yi la bokk maa ngi moom fii kooku dafa karambu sonn na mar na ba bi muy wàcc maa ngi koy caméra billaahi wallaahi tallaahi ak yeneen ak yeneen ak yoo xam ne nii man mënumaa toog di ko wax mais pour lépp comme ci li nga wax rek ñi nga xam ne nii dañoo def seen xel dem parce que am na ñoo xam ne ba léegi ni pareegul ba léegi seen xel mi ngi si Espagne mais autorité bi bu waxee Macky Sall bu waxee keneen ak keneen bu waxee ñu ko déggee noonu dañuy jàpp ne ñii ñoom am nañ la ñuy am la mais dafa war a am koo xam ne nii dem ma ñëw toog wan leen ay preuve wan leen conséquences yi nekk comme man ma ne leen man dem naa ñaar yoon lii at lii moo ci am képp koo xam ne nii yaa ngi duggaat ci géej gi bu yeboo nga xool li ngay def xam naa ne jànguma mais am naa xel moo xam ne nii xam naa fu may jaar ak gars yi ba billaahi képp ku sa xel nekkoon ci yoonu Espagne bi di nga ko jël toog def toog suñu réew fexe koo liggéey parce que boo xoolee ñiy dem ñëpp ay ndaw lañ am na si ñoo xam ne nii buñ buñ buñ buñ buñ jàngee xasaay buñ yuuxoo ci gaal rek da nga naan déedéet am na ay jeune talent yoo xam ne nii maanaam tey fi tey ñëpp dañoo waroon toog pour tekki ci réew mi comme li maanaam wax léegi sukkat réew mi xam ne ñun réew mi ñoo ko mën a doxal parce que du mag yi mag ñi seen wàllu wéy na ñun jeunesse bi ñoo mën a ñoo mën a suqali Sénégal ñoo mën a tax jaayante Sénégal dem marocain yi boo àggee nga xool leen ñoom la ñuy def nga xam ne ñii tey fi tey seen dëkk la ñoo bëgg mu jëm jëm kanam ñoom ñëpp dañoo booloo doon benn di liggéey mais ñun mën nañ ko nañ jaayante dëgg parce que bu ñu presse mayee fu ñu dugale man man déggoo man la aw ma sax bu ma sax kenn jox xaalis mais billaahi wallaahi tallaahi dinaa leen woon ay preuve yoo xam ne wala mu woon leen ay buntu yoo xam ne nii benn gaal dootul génn Sénégal man xam naa ko après dinañ la jël dinañ bu lu si dëng rek man mais lu si jub ñu ngi